ñiy xëy di jaay ci tali marché Ndoumbé Diop bi jaaykatu légumes yi ak jaaykatu jën yi ak ñeneen yi nga xam ni ñooy saxoo di jaay leneen ci tali marché Ndoumbé Diop bi nag ñoom nee nañ lànk nañ bañ dugg ci li nga xam ne moo di marché Ndoumbé Diop boobu tey ci cantine yu bees yi ak ci place yu bees yooyu ñeneen ñi di àddu amu ñu ci place yi moo tax mënuñoo dugg. mel ku lu mel naan lu mat lu mel kaafar ay kudru mbot kudru mel kudru deeñ ku ko mel kaafar kudru mel naan kudru mat kaafar ku ko mel doomu ñebe garabu gi deeñ ku ko mel kaafar kudru mel naan kudru mat kaafar ku ko mel doomu ñebe garabu gi naan patak borom sonko protéane sonko protéane patak daan wutru mat kaaba dugomène doomu ñebe garabu ginaar pata gorom ko proté ñun ñi nga xamante ne bii amuñu place dañoo war a xool baax xam ne ñii waaye nekk marché amuñu ko amuñu place sa nawle amul place jaadu ba tey jii bu ñëwoon dugle dugle tey jii bu ñëwoon dàq dugle ñun bu ñu jógee du am ko ñibbi xanaa toog ci kër gi ñi nga xam ne nag am nañ ci place yi tamit ñoom nee nañ place yi dañoo tuuti ba seen marchandise yi nga xam ne moom lañ fa war a jaayee xaju fa ñeneen ñi nga xam ne tamit amuñu ci place tamit ñu ngi ji wax bu baax a baax nee nañ ñoom bëgg nañoo am ci li nga xam ne moo di place yi mën a yokk li nga xam ne tamit maanaam moo di seen liggéey ndax fii ñu nekk tey ci tali bi naaj bi tàng na te li ñuy jaay tamit koo demee noonu bu ñu sañoon daal ñu dugg ci li nga xam ne tamit moo di marché bi loolu nga xam ne nag tamit am nañ fi place euh, nee nañ nag jamono jii mënuñu faa dugg parce que ñoom dañ leen waxoon ñu dugg ñu dugg waaye ñeneen ñi nga xam ne tamit ñoo nekk ci mbedd mi ba léegi dugg ñu ñoom it ñu génn amaana sax ñu ngi addu ci kàddu nee nañ li nga xam ne moom la ñuy foree ca tali moo gën fuuf ak li nga xam ne tamit bu buñ jógee ci biir marché bi moom la am. suñu place lii laa wax waa ñu bàyyi ñun ñu wàcc kër yi fekk tuuti jaay ci riir bi man la ñaan kay ñoo ngi leen di ñoo ngi leen di dégg ay ñi nga xam ne nag ñooy séddale place yi ñoom nag euh, ñu ngi leen di bu baax a baax a baax à ce que kenn ku ci nekk mën a duggaat ci biir place yooyu noonu jël sa place bu ko defee ñu mën a agale li nga xam ne tamit moo di séddale bi ñi ci am na ñoo jaarul yoon foofu daal lañ ko téye foofu daal lañ ko taxawu ba tax na tak euh, ñu wàccoon tey sur le terrain di leen defal ñi nga xam ne tamit moo di reportage bu baax a baax mbokk li lañ leen indiloon ci li nga xam ne moo di reportage ki leen ko doon defal Bon.